kota bijama boleh amu understand wah man semua bahara mo oh, yo ya, tela valentines day boy bu wala ada belajar en semua ci legi legi lama call mo dama ñew pour mo ha yow pour nga la ma gi xam na yow soko ya bir ci xana yow rek privé affaire valentine boy man boy ni yeba boy nak man boy da nga jéem ak kotu ni nga sewu sa koor mi sound boy boy understand ni boy man boy mbiri xaalis mbiri xaalis yow xam naa loolu yow soo fi ñëwee rek nga xam ne xaalis balance bu amee balance bu amee bëri indi bi léegi la ma kool mi ngi ñëw maa ngi koy war a dem tasa moom dugal suma seet am na ma nii xam nga loolu la nice boy moodu nag lan laa moytu moodu nag so ñaari deux bi ñëwee nit ñaari lan son man may góor man man kenn ma fee ciye trap waaw ah, man moo kenn noppale ko nag man moo kenn yow ma kenn waaw ah, loolu gën a lekk xorom man tubaalo fooy jox ma sabaari musoo nga xool <laughs> Ahora, pues. Boy, najua watanga boy. Bisa kise mwenye utupu respect na kudna Roma. Roma Roma. Yeah, abantu angalike mu Roma. Hai. Ndio sasa jara boy dem dad. Ndio mtfensa. Najua boy. La, tiga bikai. ako magkilala, Fitok. Ilalog ako, Pisa. Kurang dapat. Iba yun larong gaban ako. Wala na nga corona, wala na nga HIV. Ibang. Ang sinagitam. Sa'yo na ko sa'yo. Iba na yun. Ang nakulang text stress. Ano naman? Text stress. Diyan mo mo amatod. Mana juga selfie boy juga mungkin. Apa pun aja sih. Wah, ini mon. Oh, sawah. Eh, Kawan. Kan ini lagi di oh, kana ini lagi yo eh, kan, lagi sama kan Mandi pe malah bai dude. Eh. If mon demo bai. Ayo oh, hana lo buga de kan. di man lo ham de mo ko de Yusuf lo ko de jo mon mo lo masa masa lan. jaas boo leen ma jox noonu nga ñëw nga ne ne ay léegi bëgguma bëggatuma jaas delloo ma sama two eh, thousand dalasi eh, moo tax ma del eh, danga may delloo la sa two thousand dalasi sa jaase bi ma ne la jeex na fekk use mu ngi ma doon topp te use moo moo ko yor moo ko pooj ah macha allah loxo bi nii la def soo mën a soo nguréb yi soo yi bi jaasi bi moo tax nga dem si use bu yàgg ma use laa juus moom laa for the sake of God please please sake of god yo use la mena de jol xam tamul mala suuf ma ko ndax da nga xam sake of god toka ci suuf man yu suma ko ne ramal sa day ram if ma tidal dama la tidal sa dama la la legi jogal deug use Kailang. If, if, No no, no. Nang, nang madaglo. Nya ko jom, mat, tira nga il sumakongan ni nya ko jom. Ni nya ko jom la. Yo gris. If yo yo yo yalla du la ben ni. Yo mo la ben gris. Yo Yo dina len baye ni. Jass gessa Tutu ba ba mané. Yo if yo yo ak lu eh, mala yow loo ma xamal yëpp yow léegi nii nga ma bàyyi nga dem si Youssouf Allahu akbar F lii non lii mënoo daa nekk sax F lii mënoo daa nekk baby fan nga nekk yow mënu ma laaj man fay sa crédit baby ah yow tamit bu la ñu di ragal nii naka la Wah, cool. Misa. Iya. Ini juga. Juga. No. Belanja juga amna lo malah amal. Really? Mm-hmm. Surprise. Surprise. Sudah mau rasa gak? Gumo wala ma ajiru wala ma. Leila gini specs ni. speksi semua Sumo konte botri. Hmm. Gumo sa pagkakadiyan. Gumo na. One. Mm-hmm. Two. Mm -hmm. Tala. Three. Oh. Happy Valentine's. Really? Yeah. Yeah, mommy. Oh, anybody lah? Hmm. Soy nan, Very expensive, elegant, huh? Yes, though. Alright, we go inside. We go yep. inside. Thank you. Appreciate. Kau nak apa? Kau nak apa? Kau nak apa?

ko taaboy wala ne la bunda so taaboy wala ne man doge so ah, no problem da fe man doge so boy fana boy boy se boy fana boy boy da fana bunda me da fegara ba santi la set santi la set la tri la ka funa di boy ina gondal oncle bije a sa ela oncle bije aye fa o mina adol ti boy e video to to la kol kala bi gilon de chance kilo min sura lafta kan ko falo lo kuyata e falo lo kuyata e nan nan fo nan me tan sungu to lo nan me sungu fo jelo e so le bi ram ko e fo yabe to fe kallo ba yabe kallo ba e kallo ha mambare kallo le diga tama de bari fengo jara fo kallo le ba because ide nan ba jela ko ye chaya ko no je ba fungulari e fo mu kewal ide dama de kewal be waji ti dam dana me su fa sungu sungu lo fo so waji lew boy bi nii moom moo bëgg a fii nii sax di bu sérieux ko ci moom mu ngee kéwél fële mu ngee dem di seen teew yaa ngi xuloo nu fa demee waaw ah, ok kon tase ngeen kon yaa ngi ko gis nii mu ngee kéwél loolu la mu ngi pousse baby kay ah. comme suma femme la suma room mate la you know boy hmm. suma baby you know ah baby waaw noonu la waaye stade mu ngi tëdd ama caaw bi after nii su nekkee da nga am ma back after ma xool lu ma defaay parce que da xam ne kon wala maanaam da ngeen dégg na wala xaw ma ndax da ngeen xam ne ñaari xama ban may ban nanti may na tey may valentine xama valentine wala valentine this is valentine eh, okay so this is my gift my bring this for me you see this wow. elegance bah na trop lu ma wax FIFA bi duñ ko boy obi next time awal ma cagi mod FIFA World Cup bi du fi plié tey ay affaire boy hamna lagi la yow ayo. nga yow tey ci suba sax ñaari nit nga fi dugalan tey tey su suba kese ñaari nga fi dugaloon nga jógee foofu noonu yaa ngi ñëw dugalaat gii nii tamit man F F xamee naa ko bu baax man maa ma bàyyi si biir nii rek. xanaa kii kii moo nekk ci suñu paajo bi. ban suñu paajo bi. kii rek doo ànd. naa dafa sew ji ko de amoon na xam nga loolu si nit yi sew ji ko yooyu noonu dugg si kaw nii. loolu yëpp dugg ma na ma xam na maay ci ma ci ci paa di ne xaw ma naka naka naka. paa di ne sama ex la woon. waaye yow ñaata ñaata jigéen la fi. tey ñaar la fi dugal tey kese ñaar la fi dugal depuis ñaar la fi dugal. Bon, Ima, waaw ma caabi après ñu réglé loolu sax. Caabi. Ama caabi non tey tey kenn kenn kenn kenn kenn du fi ñam tey tey. Ñaan nga. Xam leen li xew. Maa la ko joxoon jël naa ko. Baby, this is the dream you know me. Kuy baby? So ma baby waatee. This is a real life story. Life story fan. Dëkk loo baby. Ban life story. Very good. Wakoor nu war a ñaata jigéen nga fi dugal. Ëpp na teen. ëpp na teg. yow da nga gis nga soo mii ne yow seet na ba ma nopp da nga li nga wax si kii. waaw ah. nga bàyyi. waaw ah. soo def lu baax yow moom da nga def loolu. yow da nga def lu baax. yow kii maa sama ex la. nangu nga ñëwaat bàyyiwaat na. loolu moom nangu naa. yow kon koy téye. ku may téye. ku ma war a téye waaw kooku kooku a dégg noonu la Youss yo yaa ko bàyyi noonu ñu lay di parce que dama ma bàyyi ñaata jigéen nga fi andi sa yow loolu bëri na yow loo ma wax nga ne ma ne amoo kenn waaw waaw ma ne la am naa waaye man tamit léegi aw kenn yow nit ki su ne ko da nga ñëw nga fekk kii jigéen la mën naa waaye kii jigéen kii góor la en dafa fen ma ma la wax ne góor laa sax xaaral ma la sa bi ku ko la wax ñu ne very good kon maa ko war a xam booy bii ko tey ñaar la fi dugal tey suba bi depuis suba bi time bi ñaar la yow man la yow tam ban façon jigéen la fi ànd ak ban jigéen la boo ko gisee di ko xam. non du fu ma la gisee di ko xam ne du ko du ko leen jël leen di as. yow mën nga dund. she is very good. eh he is very good. yow waa gën a. yow da nga mën a dund. eh kaw yow da nga gën a de use. ma ma de lu ma de fay lu ma de fay moo de ëpp sa bos lu ma de fay moo de ëpp sa bos. man dama jël sa waaw sa kaas bi mu ngi. non kaas bi yóbbaale ko. kaas bi da nga ko yóbbaale waa sister yow sax léegi ñu ngi léegi. sa kaas bi jël sa kaas bi yow damaa rek léegi bàyyi ma woo bi ma naa ko. rasul rasul déedéet yu déedéet xaaral yow léegi sax léegi fan. yow dañ dee photo man dama la ragal ah non puudar puudar puudar waaye bi sa volontaire séeréer ni man xam nga daa volontaire la wala di ko volontaire son comme yow sa xolal kaas bu ñaaw bi nga ma esul maa ngi jéem a nii di la promo sax xama lu xew gaay doxal son yaa xam loolu xew sax tey tey si stade bi fii nii kenn fi play tey FIFA bi play ma yaa da gif la amee si biir fii ma wa toxo di ma moo tax ma la yow tax nga yow yaa ñaan xale ka fi dugal yaa ko waral la fi yaa ko waral su ma ko wutee loolu sax It is finished.